bonjour billah bismillah inna waliyallah asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu di ku la ko bu gis jotaay bi nag xam ne am na lu ko waral li ko waral nag mooy la 5 mars ndax umpale woole ni képp kuy taalibe yaa ngi waaj la 5 mars di màggalu Poroxaan di màggalu nag soxna su sedd su tedd di soxna maam Jaara Buso ñu gën koo xam si jaaratulaa maanaam dëkkaaleeg yàlla gi di ñaan yàlla bu yóbbu ñu ci ak jàmm ak ñuy profité waale di si ziar Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké mu yàgg fi loolu te wér bàllaay sax di ziaraale mboolem njabootu sëñ Basiru gi ndax soxna jaarakat soxna jaara ñëpp la waaye yàlla sëñ Basiru la ko jëlee loolu lii moo waral jotaay bi tey di am kontaanteeg mbégte di ko dalal ak suñu suñu sëriñ sëñ Kosu Faal di ñaan yàlla mu yàggal taxawaay bi lool ndax jàmbaar la ci diine gi xanaa balaa ñoo guddal ñu jox sëñ Koso mu nuyoo bu ko defee ñu tàmbali waxtaan bi. wasalaamaaleykum ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslim sabbi bu saami nabi amaan ba sëñ Xadim soxna ne nañu naan waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu di wax asalaamaaleykum mboolem mbégte ak contentement ci di teewlu seen émission Darame Émission ci ko baaxoo di ànd ak ñun di ko topp di nuyoo ni nga ko waxee di ziar ko ñaanal di ba leen defal suñu laaj waaye di ko ñaanal ba leen kilifa diine di ñaan way taw di yal yàlla saafara leen way daw bi yal na yàlla yërëmati jégal leen. ñun ñu fi dese ne yaan yàlla bu leen soxal te du ci àdduna sax barke suñu dund di siyaar tamit également ni nga ko waxee njabootu Cheikh Mouhamadou Bassir bi yëpp rawatina Cheikh Moustapha Bassir Mbacké radiyallahu anhu ko waxee kat soxna Diarra ñëpp a ko bokk maam Diarra maam Diarra ñëpp maa ngi ñëpp la waaye nag li xolof di wax tàgg boo gisee ak jàppal jiw moo waral nag yàlla baaxee njabootu Cheikh Mouhamadou Bachir war xantaat bi ci seen loxo ñuy saytu barab ba di ko toppatoo ba màggal gi tey fii mu egg dëgg yàlla ginnaaw yàlla ak mbaaxu soxna si ñoom la ko yàlla yàlla rek yóbbu ñu si jàmm ñu si jàmm ñu waa si jàmm te lépp lu fa ñaan yàlla ko yàlla nangu ak xew ak sutura si ñëwee am solo yi ñu lay fayaat bu baax. tey nuyu bépp téléspectateur bi ñuy si suñu site RDV Vision xanaa ñu njëkkanteeg waxtu bi rek daal di tàmbali waxtaan bi ndax nit moom mënoo koo jàng te fii ak commencé woo di cosaanam moo tax sëñ Koso tey bu ñu la doon laaj cosaanu Soxna Jaara ñuy wax. waaw soxna ne ne ci tënk rek soxna Jaara ni yàlla dogal na ni ni ñu ko waxee rek seen jotaay bi weesu ci soxna Fatou Issa suñu borom bu la nammee. li ñuy wax bu nammee ci yiw ci jaamam daf koy waajal waajal boobu mooy tànnal ko mbokk yu baax moo tax soxna Jaara ci boobu feeñ na ci moom ndax maam mu ñuy wax Amadou Ali busu moo demoon dëkk bu ñuy wax xubbe dafa seet benn rakkam bu ñuy wax bookal Ali ba mu fay egg nag ki mu ko waxee dafa mel ni guddi na tombeek nawet muy taw mi ngi yoroon ay bagages mel ay téere ay gaal xanaa yu demee noonu bi wàccee ci pénc mi taw bi ñu sotti fanaanee taw ba asamaan set bi borom dëkk ba xëyee ku ñuy wax suñu xubbee moom moom ko doon woowee borom dëkk ba gis gan googu ci penc yi mooy Ahmadou Ali moomu gis ni mboolem li ko wër lépp tooy na xëpp te ak ndox laalu ko téere meeg gaal yi dara tooyu ci ñu ni ma nga doon wër téere di jàng rek xam nga kon day tegtal ni kéemaan tey ki léegi bi ko sëñ xubbee moom it gisee nag la nuyoo moom dalal ko fasante moom ak wëllëre xam ni kii kat ku baax a ngi nii ndax ku mën a nekk ci biti mbaar tiimu la dara tiimu la mu fanaanee taw léwal lépp tooy bay walangaan te yow fi nga nekk say bagaas benn dara dooyu ci mu xam ni kii am na ko yàlla may gisama ñu fi nam xool ci la jël doomam ji ñuy wax soxna xujja siise jox ko Ahmadou Ali Bousso moomu ñu am ci ku ñuy wax sëñ ma tabara Bousso mu am ci ñuy wax sëñ ma xamadu Bousso ñu jox ko soxna asawaalo mu mel ni soxna jaar dem ñoo ñu ay maam yi ñeneen ñu ngi ñu ngi seen cosaan yi dëgg nag maam yi boo ko gënee xóotal ca kaw ma nga cosaanoo fu ñuy wax ca Fuuta mooy sëñ Moussa Ka tënk rek ni Mbàkke bu sóobe xubbe lañ xamante seen maam yu baax yi foofu lañ dencante waaw noonu la ko wolofe ne mu yàgg ndax la ko waral seen maam moo ñëw di laaj rakkam ji Bokar Ali muy taw ci guddi mu taxaw di jàng di wër yéeram yaag téeram yaag ñay jàng ba bët setee ñu fekk daraam tooyul ñu xam ni kii am na karaama sooyu sëriñ xubbee ko tëyam may ko doomam maam ko ja siise ngir gisul moroom kon ma nga soxna jaar waajuram bu góor mooy Mouhamadou Bousso Mouhamadou Bousso fi ko jur mooy sëñ ma tabara Bousso sëñ ma tabara Bousso moom sëñ Ahmadou Ali Bousso boo demee ci côté waajuramu jigéen muy soxna Assawala Mbàkke di doom doomu bàyyi ci sëñ ma Anta Sali ndax ñoo bokk maama xaram kon danga naan ñi ko meññ mooy sëñ Mouhamadou buso ci waajur ci ci ci baayam bu dee yaayam soxna Assawalu Mbàkke danaa sawal nag boo jàngatee histoire bu nee la moom mi ngi soxna jaar li soxna jaara du la bett ndax olof danaan jigéen jàngaaniwul ndoy jaay reyukaay waaye soxna Assawalu koo xam ni dangaa peeg xam-xam yëpp yor daara di jàngale ba wax ne ni boo ko masaana fekk wàlla mu toog sol léeg mu solub jàllaa bi dëpp mbax na mii maanaam boo amul seetlu sax wala waxuñu la ko ñu baal ma ci kàddu gi da ngay foog ni góor yi àllaa toog ngir nam daan dunde ci alxuraan ak sunna ak dëggu ga ak mbaax ga ak jàng ga ak xam-xam ba kooku nag bu amee doom ji du mel ni soxna Mariama Bousso mu meññi ko mu yaroo fi ki param nekk ci moom wax dëgg yàlla lu mel lu ne rek olof wax olof jooju mooy daal di dellu dellu kii mooy daal dellu soir soxna Jaara mi ngi gën a àddina 1833 la gane àddina 1833 ci la gane àddina moom soxna Mame Raya Bousso wax na la ñaari waajuram ak at bi nga xam ne ci la gane àddina ba nit ñëwee ci ko seen Mame Raya sa jël di jéem yàlla tabaraka wa taala bokk fu baax mm-hmm. tànnal ko ay waajur yu baax muy sëñ Mouhamadou Bousso ak soxna Asta kon nag bépp képp kuy soxna war nañoo roy ci lii fexe ba di xool fi suñu njaboot yi di teg seen tànk ak fi ñuy duggoo ndax lii kat jar naa roy ndax boo ko fu baax moom dafa am solo si nit te ñu moytu àdduna di mu kër gannaaw nag ba mu bokkee fu baax am waajur yu baax li ciy des mooy dundam kon sëñ ko sa tey bu ñu bëggoon xam dund soxna jaara maanaam nu muy doon dundee ak sëñ Maam Mor Anta Sali ñu doonoon borom këram ni mu daan dundee ak ay wujjam moo maanaam ñi mu bokkaloon sëñ Maam Mor Anta Sali ñi mu daan dundee ak njabootam maanaam ci gàttal daal dundam loo ñu ci a wax. na solo trop macha waaye ci sa biir wax nag ni ko waxee ñu xool bu baax boo déggee ci histoire bi xam ni mag yi yi li ñu am ci njaboot bu baax mënuñu ko bañ a ndax danaan jël di lebal yàlla tey nit ñi dañuy bëgg a leble leble tey fay tey maanaam loolu yàkkam seen àdduna nga xam ne ñu xamuñu woon daanaka ay réception cinq cent mille ak ay un million ay premier cadeau yu demee noonu nga xam ne mooy waxatloo gars yi soxna jaar nag ci gàttal booy tënk dundam danga naan daal nekkan na ginnaaw bi mu peegee alxuraanul karim ak mboolem xeetu xam-xam yi nga xam ne lu ci ëpp ba ki sax wax na ni euh, li ci ëpp mi ko jàng ci daara yi waajuram boobu muy son assoir waajur muy jigéen bu doonee sax même jéggaani na feneen xam-xam xëy na dama fa jéggaani da wax ne nekkal na kon ku daan jàng alxuraan bu dégg bëccëg di woor di naafila te li ci gën a yéeme ci moom mooy liggéey bi mu war diggam ak boroomam du ko yàqal mu ko ba mu tardé li ko war diggam ak boroom këram ak daara ji ak njaboot bi suñu soxna tey ñaare ku ci am occupation ci wàllu fonction fonction yi ci àdduna yii ñuy def il faut sa liggéey kataal bañ na ko ba jànq li ñuy jël ñooy toog ku ci bëgg a nekk tim ci barab ni da ngay def lii force lay tàbbi soxna jaara nag boole woon ñaar yëpp ba nga xam benn du tàbbi waaw ndax loolu li ko waral moo di fi nekkoon ci daara yi sëñ maam am sali dafa nekkat jàngalekat yor daara ju mag kenn ku ci nekk fa ni nga jógee fa ñëw te xam na ne fukki nit képp fu ndaje kenn ku nekk si jikko ngay àndaale waaye diir mu nekk ci loola ak daara kenn ku xam ne ni mel ñu nekk nday daara xam ne ni ñuy wax hmm. bang bangi maanaam nit ki nga xam ne dafa nekk ci daara doonte leen sax ñenn ñi dañuy nekk ay muskàllaf ñu ay mag la doon waaye du ñàkk ñoo xam ne il faut ñu nekk ay ndaw loolu lépp nga mën a njabooti ñëpp nekk seen yaay te kenn mer kenn saqatu kenn ñoqatul kenn du fa nekk ba jóge fa am lu may jam ci baaraamu lu koy naqar loo ko teg kon kooku la ko waral mooy nekkal na muñkat boo xam ne ginnaaw yàlla am te yëpp muñ moo ko ko muñ googu moo tax euh, mu nekkan ci dong yi nekk comme seen ndeyu daara su guddee muy jaamu yàlla ngir mën a am force intérieure boo xam ni dana ko mën a dëgërloo ci bëccëg bi bay mën a continue di muñ mboolem lu nga xam ni luy jóge ci doomu aadama la wala ci lu mën di doon di agsi ci kawam dégg nga mu muñu koo muñe loola fi am nit ñi nga xam ne daanaka suñ xawee guddee waa ci képp seen gee dañ koy faat moom na xoola heure ba nga jóg fajar te booba da ngay rooti da ngay lu ne danga koy def dégg nga nekk ci loolu ca teewul guddi gi da nga jógaat ci guddi gi di naafila waat ci sa borom yar ci njabootam la ndax danaan toog ak ay sëñ Mamoor Jaara ku mel ni Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Mustafa radiyallaahu di leen wax naan na ngeen di fàttaliku góor yàlla ya waaw di ay ñu nga xam ay góor yàlla yan yoo xam ni la leen mayoon marché ba seen borom bokk na ca mooy naafila ma wax naan sax ci loolu la sëñ bi jógee daana jékki-jékki guddi boobu sëñ bi tu tànk la ci zahir mu taxaw bu ko soxna si la bu ko laajee mu ne ko damaa dégg soxna si naan taxaw guddi daa baax nga gis ni kon toog sa njaboot di waxtaan ci lu baax dafa am solo waaye tey ku toog sa njaboot lay waxtaan film ba làmb ja mbapat ba dégg nga facebook ba luñ fa publier dégg nga estati bi lu mu wax vocal yi ngay détaillé loolu rek moo tax njaboot gi loolu la xam toog ak sa njaboot di wax ak ñoom la nga xam ci histoire nit ñu baax dinañ ko nettali surtout boo leen tuddee ñu baax ne am nga sa doom tuddee ko soxna jaar gëstu léeg nga toog ak moom wax ko ko ni ko xamal ki ma la tuddee xamal yaay kan xam sa bopp sa tur doo ko nangami ki nangam ala kulli xaalim bu dëkkee ci ko bu yàggee loolu dana ko bàyyi ci xelam ndax gone lu muy dégg yàgg koo dégg bu yàggee di ko fàtte loolu nag bu ko ñëpp doon def ci maanaam mbaax gi dana gën kon Sara Diarra nekk na muñkat bu nga xam ni am muñam foo ko takk wees na ko ni sëñ Moussa Ka di wax wax naa la sëñ may jaxaat sax yaakaar na ma ko wax ni jigéen balaa baax nangoo dem dàgga tey rooti tey togg yu jox sëriñam balaa tilim fóoti booba la dund gën a metti te Sara Diarra dara daawu tàbbi tey la neex su ma ko mënee wax su ma ko waxee mooy tey la matériel gën a gën a doy ndax sawaan ngay def fii teg fi sa lavabo teg fi sa robinet am sa gaz sa micro-ondes te heure bi sa borom kër bëgg añoo la mbëkkoo ndékki du ko am yenn saa yi bu la waxee sànni sànni ko kàddu eh soo yàkkamtee nga dem tàngal glace bi mën a xam ji a neex de la ñuy wax de jigéen noonu te xoolal soxna jaar am na bis xam moom comme la daan tàngal soxna maam sëñ maam Alisa di tàngal café togg laax nga xam da koo sasoo di ko def te bëggul waxtu wi mu ko daan teg mu teg benn minute wala mu tardé lu ëpp loola te tegu ko mu amu mat fàtte ko fat mat ma taw te nga xam natt ma bu kenn mënu ko jaxam te bëggul waxtu yu naan kafe ga wala laax bi weesu daa dem néegam ci jigaalam génnee sëriñ teg ci suuf xar gaal ga def ko matt tàngal jox sëriñ tey soxna jaara koddaay yooyu noonu mu tegal ci suuf tey ñaata nit lay wodd te bu fi jógee léegi cent cinquante quatre moo tax li rek am solo te lii ma la am loolu moo am ci jamono ci soxnay tey boo ko comparé démb boo ko comparé démb ak tey fii ngay ci maanaam sa wàllee nekk nii jigéen la lool lépp ngi ci biir wàll yi loolu gi ma ngi fa bañ a génn sa borom gën dina am am naa ne 9 heures na nga fexe 8 heures xafeke na pare wala ndékki dina pare soo soo soo ci fotowul ko kii boo yeexee tuuti yow sa bopp yaa ko defal sa bopp gën mën a ne na leen amir am gas naa ko amal tànga bu mën a yeggee wax dafa teel bu la mel sax seen ci bu tawee moom santal yàlla soxna jaara yàlla dogalati maanaam euh, root moom mu daan euh, am na bis nga xam dañuy wax ne maanaam daana yenu ñëw sotti daanaka bu amee ñaareel wala moo ñaar fekk loolu lam lam dootan ji yàlla loolu xam mooy root boo xam fu mu yem noonu la mel tamit ci xër ci togg lu bari di joxe moo tax dégg si Moussa Kanaan soxna jaara bu aaye doo nga yëppee rakkaat di dal ñi garab yaa ko dóoru te kenn du ca gaar ngir xam ne tey soxna si aaye macha allah te jigéen day xiir jigéen day tabe ci lekk waaye képp ko jëpp jigéen joo xam ni yaa ngi calcul nu ma ko mën a sax dépense pas calcul dépense quoi mais konte pot yi nga ñuru loolu yàlla mos a jigéen joo jigéen du compter pot ñuru ay bii saa pot saa pot loolu saa pot jëkkër mën a mag ku ci yem <laughs> loolu la koy gars di waxee loolu baaxut da ngay di toggul maanaam surtout boo nekkee si yenn yenn milliers yi war nga toujours boo paree donte benn kuddu ngay tibb sax defal ko bambaax teg ne def ko boolu gar sarax lay doon soo demee ba tàpp sàmm genn gën ñëwul nga jox xale yi ñaxale ko wala guddi gi sax da nga gis ko xam ne am envie lekkaat doom dem tàngal ko leere du yàqu waaye moo gën rek yamale ko ci ñi fi nekk añ ba pare bool léegi bu sa maam yi salaamaaleykum wala sa bàjjen trois heures nga ba pare fa nga dëkk sa semence sori na fa nooy def te xamoo fu mu jógee am ñoom li ñuy wax la carrément man ne fajar laa jógee woon dëkk ba ñëw boo ko demaan ci àll bi café sax naa la guma nga ko bàyyi xel moo sama sama jaara daawul limité programme danaan togg joxe te lu mu naan togg danaan bëri bu baax a baax a baax waaye soxna jaara bokk na ci jikkoom soxna nen amutal fréquentation milieu de ko moo tax sëñ Moussa ko wax na ko nee na musta dox di waxtaan waxtaani musta dox di seetaani musta dox ba ñeetaani moo ta doxal seetaani xam nga fa la daan fréquente mu wax la di la musta dox ci raw sax bay werante ci maasam téere baa di waxtaanam loolu moo defam xaasam su na nee fréquentation day dem tijji alxuraan karim jàng su na nee wétliku tijji alxuraan jàng tey nag xoolal sax ne tey année fi ñuy fréquenté Facebook fi ñuy fréquenté WhatsApp fi ñuy fréquenté Instagram fi ñuy fréquenté YouTube loo tax lii am am mënut a ñàkk danga dem ba ci nekk sa biir kër nekk ci sa téléphone ruusi sa euh, nu tëddati teg sa diw ñëw di ruusi diw ko tàkk nga lax whatsapp bi nga toog rek tey dem nañ ba toll fa nga xam ne fi nekk nii kenn bokk na ci <laughs> comme genre drogue boo dajalee fukki nit yoo dajale juróom-ñeent ñëpp seen téléphone mën naa bañ a waaye koo kitaab doonee man ko ne son koo kitaab doonee man ko ne xam nga li war a mooy fi nekk nii ñoom lu am ci crédit jëndee ko dugg ko dugg ko ligne toog te normalement crédit moo nekk priorité parce que am na lu nga xam ne urgent la tey man sama amoon urgent soxla soxna nenne bu ma ko vocalee man su ma nekk a en ligne amaana moom ni ko en ligne léegi sa yaay ji nga ci dëkk ba wala sa bàjjan ñoom même amuñu téléphone whatsapp wala mën ko amee nekkul tout le temps la ñu nekk en ligne wala ñu nekk fond de daa naqari wala du ko taal léegi nga am urgent amoo crédit nooy def waaye kenn gàddantu crédit ci téléphone am loo am dugg ko paas toog kooku am ñoom bu ko ñàkkee rek carrément dañu mel ko def dama dama maanaam dañuy dañ seen dañuy dañuy dañuy tàyyal soxna jaar nag moom musul xam fréquentation xanaa lu dul alxuraan waxtaan ak yaayu yàlla yi ak waxtaan ci yàlla ak yeneen bi ak ñu xam nga keroog ba muy jëm këram dafa dogu woon ni maa ngi waat ci maa ngi waat ni bi mu tijjee kaamil bi wa maa muhammadun illaa uh, laakin rasulaay xaati xaati xaatimi nabiyina xamatu ma ne ko alxuraan gi ñëwee ci aaya bi saa ko fàttali ba léegi mooy foofu suñu borom di waxee ni maanaam amul beneen yónnent buy wàcc ak ginnaaw Muhammad rasulaay salaa salaam Muhammad salaa salaam mooy tëj mu ne man nay maa ngi waat ne bu fekkee ne yàlla waxul loolu fa ma jëm naa fa amul yónnent xool googu dog loolu moo yaa ngi dem pour dem wuti lu baax waaye soxna yi tey yooyu xalaatuñ ko bu ñuy dem kër moo tax dégg naa keroog getaay ba bi ñu ko yeb loolu ñu wax yeb xam nga boo leen ñu lay muur ñu lay dénk loolu ñu ci bopp keroog moo moo njëkk saw li leen jotaay bi jël mu na nit ki fu mu juddoo màgge fa yaroo fa màgge fa ba ba mata ba mata ba mata sëy ji maanaam mata dem kër daal lu nekkutul ca moom ba bisu keroog bu ñu ko waxee bala moo génn mun ko fàtte nit toog na ba tàyyi ak timis ñu di ko yab di ko dénk ku la ñëw dénk imaam bi dénk ko chef de bi dénk ko baay bi dénk ko bàjjen dénk ko ñu ñaanal ko dem ñetti fan mu ñëwaat kër baayam mooy la soxna ñëw na hmm? nga gis ne kon loolu nekk na lu nit ñi mat a bàyyi xel ci roy yu baax ñu nga xam ne dogu gi da ngay dem ngir liggéeyal yàlla ci sëy bi ngir am fa lu baax nga xam ne tey alxuraan bu fekkente ni bi muy wàcc fekk na ñoom soxna jaare mi ñëw ba dem ñu mel ni soxna Fatou Issa ak soxna Anta Ndiaye il faut fu mu tuddee soxna Mariama yooyu baax yu ci alxuraan ak ñoom soxna Xadija dañ leen fa tudd ñoom foofu lañ tegal seen bët te loolu wax naa la ko bëgg démb ci bi ñuy def daja ba moo di ni loolu mooy rey ba ci jigéen fexe ba yow ku mel ni yow du am li nga am te lii ku ci teg sa tànk am loo xam yàllaa ko jagle doomaa aadama comme soxna jaara moom am na jagle sëñ Tuubaa jagle la waaye nag ku roy ci soxna jaara fam tegal tànkam nga teg fa ala kulli xaay di nga raw moo xam ni euh, defu te loolu rek jar na ko kon moom amutoon milieu def Soxna Jaara bokkal na ci mbaax nga ci lewet gi ci yaatu gi daana jël teraanga sax ñu jox ko nit ni ko Soxna Anta Njaay moo la nga jaar di ko di Soxna Anta jaar di nga koy gërëm naan ko gis naa yóbbante ba mu ne cey cey Mariama bi léegi xoole xoole wujj tey yi da ngay xamal sa wujj lu baax nëbbu ko xamal ko benn boppam di ko détaillé di ko détaillé di ko détaillé bu dul jar dara yóbbu ko Facebook yóbbu ko WhatsApp esthétique ko te li nga xam ci moom ci baax moo ëpp fukki junni yoo kon àdduna daa mel si boo koy xool dafa tas ba ba kenn xamul mu doon xam naa ñu wàcce kàddu gi ci fi ndax neexuta nangu yi doole mar la si liñ ci bëgg wax yëpp xam naa xëy na du xaj ci kii bi waaw waaye daal soxna yi war nañu gën a góor bu baax a baax a baax a baax hmm, demal na ba ci euh, ku ñuy wax euh, euh, wàllu wàllu wàllu wàllu muñ googu ñu la ñu la doon wax sànq euh, sëñ Seex Masamba Jaara Mbay daf ko taalifam wax ci ay bëyit wax ni soxna jaara ci rob ga maanaam jamonoy sedd bu jotee day tax ni ñëw jox mag ñi ñu jaar jamonoy tàng bu jotee booba xam nga ndaa moo amoon ay ndaa doon fexe ba defal njaq fexe ba ndox mi ciy nekk di sedd mag ñi di ko naan xololoon rek moom la wax mu ni hmm, kaana indal waxyenda waxtasay turtil kibaara taaman hëkk sa xataban waxta suddaa yi min ayaamil gurudaati kasaaka fi sayfi tuxtil aajisina sharaban baaridan kaana yan fii kulla xulaati waaw nee na bu bu bu sedd jotee mu dem tax ñu jox mag yi nga xam ne ay màgg na ñu seen yax yi day baaxu seen sedd ñemewu ko jox leen ñuy bu tàngaay jotee na fexe ba am ndox mu nga xam ni moom lu mu tàng tàng boo ko naanee day mel ndox sedd ci yow di ko dox ñoom lépp rek ngir liggéey yàlla waaye muñ nag mooy maye loolu waaw te ku dul muñ doo doo am waaye nee na nekk na ko nga xam ni da daan rafetal diggam ak boppam diggam ak dëkkandoo yi ñi ko jige ak ñi ko soñ waaw mutiatu rabbiha wa walidayni laha li kawniha fawqa jaarati wa jaarati topp boromam topp waajuram topp borom këram qad ahsanat ma asahat kulla jaaratiha fi adna wa siwahuma min ku jigéen ku sori ñëpp la soxna jaara boo woon ñëpp ku dikk daal xam ni yow kii ki nga giseel ku mat a nii ku mën a muñ ku baax ku yaatu ku sawar ku ku ku ku am ñeewante ci doomu aadama loolu kon du mat a bàyyi xel la ci mbokk yi ñu di ko roy bu baax a baax a baax man ñu kon loolu fi nekkoon mooy liggéeyal am na ku ñuy wax Serigne Massamba nga dem a jóg bokkan ci daara ja ña fa nekkoon ne dafa am bis mu ni muñ bi soxna si di muñ daal man naa ko examiner naa ko natt boo xam nee na ma bàyyi ba ndox ñàkk loo xam ne yenn saa yi teen bi day xaw a jafe nee na ma bàyyi ba mu dem rooti bay ñëw rek mu seen ko daje moom ci bunt bi fir ko paan bi paan si jógee da di jëlaat paan ba kii teen bi mu tuwaat mu sax xoolal li nga def ma ne ko cay buloon bi na tëj rek na sax mu war rooti ndox mu sanko nga ci bunt bi fël ko te tey yow nga tey ko nga ñàkk ko tey bis bu la ci butoo fa ngay yow da ngay ci suuf ngay kii waaw mais xoolal loolu moom nee na keroog moom la la ko summi loolu ñu wax loolu ñu wax keroog la ko summi la ko summi sàmp waaw kon wax dëgg yàlla soxna yi am na royukaay waaw soxna jaara musul xam jesneer musul xam ganilaa donte boobu amatu mais am na ay yéer yu amoon yu am bëlaw yu ab ay cuub waaye yëpp du ko bàyyi woon dégg nga ñu liggéey yàlla waaye ba wax naa ko sànq boo demee tey màggal Porokhane bi ko sa man taxawal camion bi di génne ko daay jaar yi or sax soxna jaar yi doole na ko jox nit kuy dund xam nga ba sax mais lu ko mooy suñu borom moo ni na ngeen ma lebal njëkk ma fay leen yàlla la lebal te yàlla fay ko fi mu toll soxna jaar yi mi waddu ci ay nit nit ngi dund te ni waddu ko ba mu koo xam ne yow fanweer at ak ñett nga dund fanweer at ak ñett jàng fi alxuraan jàng fi xam-xam liggéey fi liggéey bu toll nii loolu mooy gudd fan dafa jóge léegi boo xoolee yaakaar naa 1866 ba 2020 154 ans ci ren te lii ba àdduna tukki muy amit tërëndoo di amit daaya ñu koy waxtaane mu nekk ci xolu nit ñi ñu di ko bëgg a doon soox bu mu yow wax yàlla loolu mooy gudd fan. am ñoo xam ne toolu bëgg démb képp dañ faatu kenn xamoo kenn fàtte na leen bu yàgg kon ma ngeen loolu mooy gàtt fan kon ñu ngi sa xel ni tey sàkku barke tey bëgg lu baax tey roy suñ soxna yu baax yii suñ yu baax yii. lii la liggéey yàlla képp ko mën a may waaye nag il faut nga mën a muñ yaatu dënn yaatu xol mi loolu a muñ yaatu dënn yaatu xol am na bis laax boobu ma la wax danga daan am togg soxna jaar mu togg ko ni ko doon ko togg sogo sëñ Maamoor mu togg ko fekk sëñ Maamoor wala xëy barab teel a xëy léegi bi muy yàkk fekk sëñ Maamoor léegi ni ko fas mais xoole ci yàggat teggin dégg nga xam naa ñëw ni ko ah kii bi day mat na te ngaa xewal doo dem waaye comme sëñ Maam dem na bëyëg ci fas rek ci yàgga ci teggin gi ci nangu kilifteef hmm? moom xalaat na ni waru ko wax la koy dëppoo la koy wàcc te boobu yekk na de sëñ Maam Mor dawal fasam soxna jaare jël lax bi yàlla toog ca tàngi fas hmm. ba sëñ Maam egg ci dëkk ba mu jëm mu bàyyi ba mu dugg ci kër ga ñu koy dalal ba dal ba pare dégg de mu dox ndànk dem jaxoo nga xam ne sëñ Maam keroog yéemu na ba seereel soxna si ni ko man de ni ma jéggale yalantee mu neexe ne maanaam noonu laa déggale yàlla ñu xoolal loolu <laughs> sun sun directeur bi de naa sànni xeer madame bu dégg ma waaye gis nga bu waree xëy 6 ah ndékki la ma fekk bureau fa lay nekk woote ba gis dara. donc yow fu yoo lan lay wax fu yoo foo ko gisee ah? wala il faut que ñu delloo si suñu xel roy ci te loolu mu doon lépp tey gis nga bi añ bi dikkee ñëpp ci xaj waaw te loolu mooy njëriñ seen salaasa dafa wax ni xayru naasi ki gën ci nit ñi mooy ki ëpp njëriñ ci nit ñi ëpp njëriñ ci na comme li soxna kon mbokki soxna yi surtout Sénégal bi ñàkkuñu royukaay ba gi démb waxaa ngi soxna Fatou Issa jikko yi la amee woon boo demee soxna Anta Ndiaye nii la amee woon soxna Fatou Issa Dieye nii mbaax gàgg bëgg lu baax dem ba tudd ko dëkkaare yàlla muy jaariyatullaahi ah lii la amee woon te tey jëlee ci wax dëgg yàlla fi mu doon kenn ku ci nekk yaa ngi nii siiwa am doom bu jigéen bu tuddee ko maam jaara di ko wooye busa wala nga koy baali daan koy wooye soxna Mariam yóbbu ko ci daara Porokhane mu jàng ba mokkal am métier génn dégg nga ko sëñ bi nga koy wooye soxna maam jaara kon loolu mbaax gi rek ko waral nan rey foofu bu baax a baax a baax. macha allah sëñ Kosso kon kàddu yi leer na am na solo yéen kon daal bu ñu déggee bu baax soxna jaara nekkoon na soxna su oyof. Hmm. ndax daal nañ faral di dégg ne jigéen bu nekkee ci kër di sëy daa war a oyof ne ma xam ne ndax bu diisee rek du neex a gàddu. Hmm. nekkoon na yit ku mën a muñ ndax daal nañ dégg aussi ñu naan jigéen daj bu mënee muñ rek dina dina mës a muñ hmm. te muñ googu weesuwul mu am ci denk ku tedd kii ñu naan Cheikh Ahmadou Bamba njaruñu jaar ñu tey nekkoon na it ku yaatu dënn nekkoon na it ku noppi ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne man sama dana jaar hmm. maanaam ku noppi mucc hmm. nekkoon na it ku mën a jaamu yàlla ndax daan na naafila comme ni ko sëñ ko sa waxee daan na woor it nekkoon na ku dégg ak borom këram kon ak fi jamono toll yi ñun soxna yi war nañoo xool fi soxna jaar tegoon tànkam ñu teg fa suñu bos xool ni mu daan doxalee ci diggam ak ay mbokkam ñu di ko doxalee xool ni mu daan doxalee ci diggam ak dëkkandoom ñu di ko doxalee xool tamit ni mu daan doxalee ci diggam ak borom këram ñu di ko doxalee ndax kat sëy daa am solo si soxna ndax loo sëy sëy sëy mën a moo ko gën boo mënee muñ rek sëy ba daanaka day yomb kon nag nañu takkaat laxasaay ñun soxna yi jéem a royaat ci soxna jaara ndax jikko yu ñu war yëpp mi ci soxna si buñ ko royee rek am ndam mm-hmm. incha ndax wee mu gudd fan kon ni ko sëñ Koso waxee weesuwul tey chaque année ñu di ko màggal muy màggalu Porokhane bi kon nag balaa ñoo guddal ñu jéem a njëkkante waxtu bi daal di jox seen Koso mu daal ñuy andil ay leeral ci wàccaay màggal gi nuñ ko mën a defee ba jëlee ci la jërëjëf soxna ne macha allah macha allah dëgg yàlla nga seen bi am na solo trop tënk nga lépp ci wax waxtaan yi moom weesuwul rek ni ma ko faral saa waxee saa su nekk wax dëgg yàlla doo bokk ci daayira Soxna Jaara ñu fa laaj cotisation ngay joxe àllarba wala alxames yaa xam wala par fin du mois xotti ay hôtesse dégg nga joxe euh, passe bus tekki daayira bi dem ba Poroxaan ni màggali nga te doyoo ci benn jikko bi soxna si kon waxtaan yi mooy diglu waxtaan yi nga xam ñu ngi def ci soxna si nga fexe dëgg ma benn jikko li hmm, ma ne bii fas yéene fas yéene naa di ko doxe su fekkee da ngaa nekk koo xam ne yaatuwoo fexeel ci soxna yaatu boo nekkoon koo xam ne mënoo muñ fexeel roy ci moom muñ boo nekkee koo xam ne daawoo danga naan fayantoo fexeel nga bàyyi fayantoo soo nekkee koo xam ne maanaam danga xaw a pànk moo ko mënee wax yenn soxna yi pànk yi ñu bàyyi loola su ko defee bu yàggee da am baax waaye dem naa Porokhane ñëw naa rek dégg nga tey royu ci soxna si benn benn benn jikko loolu daanaka dama yàlla baal euh, taxul ñu fàttali ko bu baax te bu ñu fàttali bu baax ay ay jikkoom lii moo waral loola maanaam ñu fàttali ko jikko yi ndax ñoom saa su nekk jamono di leen soxla ngir ni wax nga ko sànq fi jamono toll waxtaane ji ñu am solo la kon soxna Mariama bu soo ñuy ñaan yàlla yóbbu ñu ci bi ñu dem ci jàmm ci jàmm lépp lu mu fa ñaan yàlla ko yàlla yàggal fii fi lool ci àlal na biir am wala njëbo seen tubaab bi yépp mi ngi génn àdduna euh, bisub àjjuma juróom-ñeenti fan ci weeru gàmmu ci atum 1866 gis nga boo xoolee 1833 36 di 33 cent 1386 la tombeel ci euh, maanaam jaay sa seen digg ci gàddaay gi su ko defee kon loolu mooy li nga xam ni nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax bu euh, nekk ci kër wax ko sànq di muñ jubóog say goro jubóog say njëkk jubóog say wujju waaye xareeta yii seen sëy moom yaay bokkut baay bokkut njëkke bokkut ñoom daal ñoom muse xëy na bon bi ak bu namee doom jeex moo tax réew mi am problème rek te sëy ñii nañ cee bokk te dégg nga sëñ Moussa wax na jaara naan ko nuy ji ay dëkkandoom nu ji ay njëkk jigéenam mooy i njëkk soo toggee lu benn borode nga ñëw jënd jox yaay boo rombee benn mbaxana nga boo rombee dàll yor nga ñëw jënd jox baay hmm? yooyu dafa am solo wulu dara ñaan gi lay ndax tey jii nii sa baayu jëkkër nga romb poppati ni amande xaaral bàyyi bi de bëgg na maxana xaaral ma jënd maxana jël liggéey sa poset benn mille franc nekk nga waxaale ko jox ko ko heure bu ko solee bu ko bu heure ko bu ko gisee rek sa xelam lay dem ci yow bu ci jullee di la ñaanal say say dee barkeel stable am ci dëkk sa dikk sa borom kër doo dem ci sëriñ di ko weexal mu lay arnaqué di la max nit ñi kon nañ yow mbir mi liggéey yàlla kese la du la neen nit a ngi fii koo xam ne ñi ngi koy nax ci ay sëriñ muy dem di weexal ay cent mille deux cent nam war a nekkee ak i njëkkeem ak i gorom soo ko nekkoon ci biir kër gi te yàlla rek tax wala asim du am lu koy naqari tey seen diggante bu borom këram dem dinaa ko ñaanal ma sama diggante borom kër neex luy loolu yaa war a fexe mu neex yow la jigéen lu mu bëgg lu na koy am tañ bàyyi yi nga xam ni fa la ñuy jëlee conseil Facebook dox dajale mbedd la robinet moo WhatsApp ñoo yam kenn du fa conseil kenn du fa jëlee xalaat nan delloo seen xel lan ci war bu ñu ko jëriñoo bu paree ñu teg ko fële suñu musaaka dafa wax ni ci ci ci ci euh, jigéen ñi ci ab taalif bu mu taalifoon bu nga xam ni bu mat a bàyyi xel la hmm? dañuy araf yi wala ñu commencé ko fu gën a gàtte dañuy arafi nun gii ku ko boole xeej ji te seen borom kër yi gars yi duna xaaj mooy neex ci ree neex dareet neex làmb neex lépp di neexalaate gàtt gémm gis nga loolu boo ko boolee jàmm ngay am soxna si neex dareet ko wax nga ree hmm? soo toggee mu neex nga fóot mu set nga paase mu tàlli moo tax ko am loolu nga koo jàngal fexe ba nekk jigéen ñi naa santal naa rek sëñ Moustapha wàcc na madame anaañ bi pare naa de yoo laa doon xaar waaye wàcc xiib anaañ bi pare xaaral ma ñëw sóodi ca xool lu ñàkk fayda moo ko déedéet waaye dama doon seetaan seetaan film bii laa doon xool ma egg la waaye dama doon xool maa ngi woon si groupe WhatsApp bi waxaay laa doon diglu baal waaye xaaral eh papa xaaral leen di la neexal xaaral ñëw sori te nga jox ko sa dépens mu fanaan ko nga xëy fajal jox ko gaz jox ko lépp sa antaar trois heures la ko yàqal ah. santal naa sama yëri ma di ngeen ko fóot naa ko paasal papa maa ngi dem toogal ngeen ko toog na bàyyi ngeen ko bàyyi na noppi noppi naa waaye guma moom baaxul ci jigéen an yi paree guma ndékki li paree guma yëri yi fóotu guma nan bàyyi xel yooyu tax xam ne Seydou jaaxaan ki la yàlla booleel sa borom kër yi dañ saa sax ne jëpp jigéen ju faatu yàlla boroom këram gërëm ko àddina la jëm moo moo tax mu ni euh, jigéen ju ndaw nag arafi faal yi la ci bon mën na bu mu mën a bu mu fiir mu faru bu mu fay ay fay nataaru nee na tamit euh, arafi raa yi léegi ca baax naree ja neex ràcce ba neex ba set ruq ba féex jigéen di war naa civilisé set foo ko fekk muy ànd ak koreñ di xëy lu neex tey sa yére set bu sa borom kenn dee bëgg a wàcc san sangul ba set xool yére ba gën a riis dégg nga sol ko xëy parfum bu neex nga xam ne bu tollee ca buntu kër ba rek ngat gi da koy daaneel su dikkee nga accueillir ko jox ko para jox ko ndox mu set tey jàng communiqué waaye nit ki mënut a xëy 6 heures du matin jóge këram liggéey biir Dakar embouteillage bi dem embouteillage surtout gasoil bi sonn bay bëgg a dee añ sax boo ko joxee danaan xaaral ba ma egg kër gi ñëw ni salaamaaleykum dégg nga laalagul ndox wala mu laa ndox nga andi lal muy am inspiration ci lal bi ni ni ni kii bi ni euh, nu ñu sax ni napp bi ni mu rafete hmm? dégg nga nga tàngal añ bi mu koy xeej maanaam ah tey daa mel sama waa gi sama palaab la coon ceeb kay tax la ceebu ji li may xeej daa mel ne ceebu jël la dégg nga waaye ñëw nga jox ko ba teg ko ni ko facture courant yaa coupé appétit bu xam lu muy lekk wala mu tibb benn kudd ci baat bay bëgg a noyyi nga ne ko gaz bi de jeex na. xanaa nga tëddee te nu koy waxee brusquement da xool ni ñu communiquer ak borom kër yi gaz bi jeex mën nga ko ko wax te doo ko wax sa carrément gaas bi jeex bu dee ay facture ngay annoncé loo xam ne nouvelle bu kilo yàlla bu weer yi sori nga xam ne wóor na yow tey bi mu ñëw sa mooy loolu bàyyil ba mu añ ba suuf ngay waxtaan ak moom di waxtaan ak moom ba am foo dugg communiquer dafa am solo. kon maa ngi jégalu bu baax di jégal ñëpp yal na yàlla defal dégg ak topp di ñaanal yàlla ñëpp màggal ak jàmm soxna si am ngay reere waaye yéen ngeen doy <laughs> waaw di ñaan rek yàlla may yàgg ko fekk at yu bëri santa santaat di gërëmaat mboolem ñi nga xam ñu ngi topp LD Vision Ndar Vision ci YouTube beeg Facebook ak euh, si internet bi di ñaanal yàlla defal ñu jàmm defal ñu xéwal def ñu dégg ak topp yéen jox dig daje beneen jëmi jotaay gis incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala mbokk képp kuy màggale war ngaa bàyyi xel soxna su sell si ngay seetee te bañ a topp mumbaay bi ak xumbaay bi ndax takku jukkan màggali lu baax la waaye fexe ba boo yeggee nga roy si jikkoom yooyu dàggal muy baax ba muy sell ba muy set ba muy lewet ba ak rafet jikko ba kon nag maa ngi koy soñu si sama bopp di ko soñu mbooleem soxna ñu góorgóorluwaat te jéem a roy soxna jaar ndax ku ko roy ku ne doo ko mucc te sëyee nu ma neex am fa lu ma neex amul fenn mm-hmm. boo bëggee am lu la neex da ngay sëyee kon ni soxna jaara daan sëyee xanaa rek ñu daal di wàccee foofu kàddu yi di nuyu mépp téléspectateur bi ñuy suivre si suñu site ND Vision via Facebook YouTube di tàggatoo nag tàggatoo bu dul tàggatoo ndax dinañ amalaat yeneen émission bu ko defee ñu gën a yaatal incha allah kon ñu ngi nuyu ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah